bismillahi rahmaani rahim daa mel ni coowal weer nag daaw laa ko gëj dégg ci arafaat ja te moo ne weer yu bari dee nañ fi kenn lijjantiwu leen kañ lañ dee kañ la weer juddu at sax jaar na fi ci diggante bi te moo ne amul benn coow te moo ne day saa yu koor jotee wala tabaski dinga dégg ñu naan murid yi seen sëriñ la ñuy woor wala ndigal la ñuy woor moo tax ñuy woor mel ni ñoom li ñuy def teguñu ko ci xam-xam wala benn gëstu te pourtant ñi koy wax de ndigal lañuy xaar comme ñëpp ndax buñ nee ñii woor nañ rek ñii dañuy woor te pourtant ñoom loolu lañ jàpp ni moo normal waaye nag mbirum weer du xewul noonu nekkul ni at mi yëpp benn weer a ci am moom lañu war a séentu ku xam-xam tax jóg wala dëgg wala xam weer laa jëg tax laa jóg boo bëggee séentu aw weer mënoo bàyyi ba weer woowu jot ci at mi yëpp nga di ko soor a wër loolu moom koy def doo jug ci ñoom Sénégal nag bañ duggee ci janvier ak février ak mars lañ am problème moo ne de ñun complex complexe rek mooñ ñu jàpp waaye am nañ suñuy weer ndeyu koor maami koor raq ji gàmm raqaati gàmb da nga koy dégg yooyu yëpp da koy dégg digg mag ñi di ko wax xam ko jàpp ko boo ne kañ nga àdduna sax ñu mën laa wax lu mu tombeel ci histoire ñun nag tey jii duñu lijjanti sax ndax ñi ngi ci jumaa ula wala ñi ngi ci ndeyu ko wala maamu koor duñ ko lijjanti de dañuy bàyyi ba koor ñooñu bëgg koo lijjanti mais loolu mënul nekk mënul nekk du xam-xam déedéet. liñ Seex Awa Balla Gaye dañ ko mos laaj ni ko lan moo tax gàmm ak. màggal du am werante mu ni ko ñiy werante du ñu ko am duñu màggal loolu rek doy na sëkk ab réponse loolu day leeral lu baree bari li mu tax jóg nag tey jii mooy leeral lislaam lan la wax ci wóor leen bu wóor jotee doog leen bu doog jotee ndax nii ko sénégalais yi jàppee nii noonu la deme ak yoonu murit ban histoire lañ am

woor leen boo leen ko gisee waxul dégg de boo leen ko déggee de dafa war a leer boo leen ko gisee la wax dog leen boo leen ko gisee ba tey waxul boo leen ko déggee de weer du lu ñuy dégg lu ñuy gis la moo tax Sëñ Tuubaa daan wax folli leen seeni nopp tafal seeni bët amul fenn nag fu mën a waxee yonent bi salaam salaam dañuy woor leen boo leen déggee ni weer wi feeñ na dog leen boo leen déggee ne weeri feeñ na déedéet loolu moom yëpp sallallahu alayhi wax xam naa ne dina am ñu interprété di ma wax xadisu arabi yu wala ay ru'yatul hilaal wacha déedéet ba tey bokkul loolu dañ ko war di leeral dañ ko war di leeral ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy boo leen gisee weer wi woor leen gis la wax xam nga gis boo leen ko gisee dog leen gis buñ ko gisul nag mu ni ngeen mottali balaa ngaa mottali daf fekk nga xam weer wi ci ginnaaw fu mu toll waa léegi bu fekkee yow lijjanti woo weer wi ñu nekk comme ñu ni ñu ngi Shambane lijjanti woo Shambane ak lu ci xew léegi yow boo taxawee Sénégal yi naan bëgg ngaa lijjanti weeru koor wi di ñëw da ngay wax lu la neex ndax loolu mënul nekk ndax yow xadis bi ñetti mbir a ci nekk woor leen boo gisee wore leen boo gisee boo leen ko gisul nag nekk kon loolu day wane ne nekkul ni force dañ ko war a gis ndax fa in xumma loolu science la loolu nature bi moo doxee noonu doomu aadama am na loo xamante ni bëtam mënu ko teg bët loolu yàllaa ko def xam nga mën na faa nekk sa mën na faa nekk waaye sa bët gisu ko parce que dañ laa wax boo gisee weer wi bu bu fekkee lënt lënt na nag lënt na waxuñu la néewu fa de weer wi mu na ne ci asamaan si mais sa bët mënu koo gis mais sa bët ñàkk ko ñàkk gis mais na dangaa naa ah, kon weer wi yaakaar naa mi ngi ci mi ngi ci asamaan si quoi naa woor déedéet kenn waxu la loolu bu lëntee ba sa bët mënu koo gis nga mottali mais quel problème foofu laa bëgg a xam lan mooy problème bi foofu amul benn problème xarit si amul benn problème vraiment ci appliqué ko gis naa woor naa gisuma ko dama woor loolu xadis la beneen bi mooy lii xew senegal diw gis na ko ca euh, Kumpentum diw gis na ko ca Congo diw gis na ko ca comme si que ni ñoom rek ñoo am bët yi ñuy gisee weer te àdduna fi mu toll islam maandu la wax. ku maandu mënta nekk inconnu ci yow loolu mënul nekk koo xamut mosoo koo gis dégg rek nga am ci moom mënoo koo seedeel ak maandu. preuve bi mooy koo ñëwewul dénk nag say milliards sañoo koo dénk sa diine bu fekkee dangay ngay liggéey ba weer wi dee nga da nga dénk nga jël rombenn rek dénk ko sa xaalis wala nga dugg oto rek jaar kamp kumpentum rom fa benn waa bu taxaw tali bi nga dénk ko sa xaalis loolu amul kenn koy def ci yéen wala si ñun parce que la moo tax maandu te ak kóolute moo fa nekkut kon nag mbiru diine moo gën a gën a garaaw fopp moo ëpp sensibilité fopp nga jël sa alal di ko dénk ni taxamoo kon mënoo toog rek di woo téléphone ni la allo man la diw maa ngi Koumpentoum gis naa weer te pourtant mën na nekk biir Dakar ak fi àdduna toll ak nit ñi ni ñu naa fexe ak yàq dina li leen jaral loolu kenn mënu cee woor ma leer. parce que ñi tegtaloo ci loolu mooy yonent bi salaam salaam benn arabi yu moo ñëw ni ko waaw gis nañu weer bi mu woor mu mu mu mu mu saxaaba yi kon kii leen dog leen bokkuñu de. yonent sallallahu alayhi am naa feq bu ñëwoon ci moom sax wax wax joo xamante ni moom bu ko gëmee sax alxuraan day wàcce ay alxuraan ci saa si loolu moom personnalité yonent sallallahu alayhi te moom moom aussi moom la yàlla jox diine même bu ko araab bi waxoon gis naa gis naa gisuma sax bu ko waxul woon sax yonent sallallahu alayhi sax yàlla may na ko mën nañoo saxaaba yi ni wóoru leen ñu wari kon loolu moom xadis boobu moom lu ci sukkandiku ak waaju nekk xaw ma njaxumpa déedéet beneen bi sax mooy xadis bi waxuma wér naa wérut de dafa nekk lu mat a xoolaat mat a seetantalaat parce que jamono jooju manque de moyen nga ni ku dëkkoon ca àll ba ku dëkk ca àll ba nekk ab sàmm jóge ab dëkkam ni gis na weer kooku ñaata temps la war a def ba dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yunus sa aussi fan fan la dajé ak mom ñaar temps la wara def bo wara a ci sahaba yi wara leen informer yooyu yëpp mën na am problème parce que fa jamono tollu nak bu dee ku dëkk ca baadiya bu dee ci baadiya ba dëkk lenn mu mëna am dëkk ba bam jigeewul won fa yunus sallallahu alayhi wasallam nekkoon kon problème do am duñ wax ni démé wul noonu kon waji fam dëkkon dafa sori ni hadith bi waxé bu dee fa mu dafa sori ñaata temps la soxla pour jógee dëkkam bay ak yunus bi fam dajé ak mom ak bu fekk yunus sallallahu alayhi wasallam fa mu dajeeg moom daa jige loolu ñaata temps la yéen sansan soxla ba war a wax saxaaba yi wala waa fa fa fa mu nekkoon ñu war a dellu fa war a woon mais yooyu yëpp dafa war a dafa mën a distance bi nan la demee dëkk boobu ak dëkk ak boobu ndax dëkk boobu ak fa yéen sansan am nekk ñoo bokk waxtu wu ñu jullee timis ñoo ko bokk ndax ñoo bokk fuseau horaire parce que loolu dafa am importance ci xadis bi te duñ ko souligner te duñ ko tudd dafa am importance ci l'islam ki nga xam dafa dëkk fële ibéri xawma nga xam ne ñooñu boo xoolee fa ñu nekk ñun nag ñoom yow mën naa nekk fii léegi 14 heures ñoom ñu nekk ci ay 20 heures wala 21 wala 22 heures kooku bu gisee weer wi heure ba mu koy gis timis heure ba mu koy gis timis ci moom boo moytuwul man maa ngi sama 14 heures man kon man damay damay wari kon. imagineel moom mu nekk tey timis timis jot ci moom nii nii may wax ak yow nii mu gis weer wi moom. kon mag ngi moom bokkuñu sax bu fekkee woor ma ci saa ak téléphone fi mu toll tey ni ma wori naa gis naa weer wori naa man ma wori pourtant man mun naa man maa ngi sama vingt neuvième jour wala sama vingt huitième jour moom mu jeexal vingt neuvième jour am loolu problème day am problème day munul nekk. fii ma waxee am na dëkk yoo xamante ni mais ñooñu mën nañoo toog weer guddi rek la ñuy gis duñ am bëccëg. léegi dëkk boobu bu fa gisee weer ni ma gis naa weer moom kooku maa moom lu ñu demee pourtant ci àdduna bi lañ nekk de am na dëkk yoo xam balaa ñoo gis jant waxuma la ak weer waaye jant balaa ñu ko teg bët c'est tout un problème mais kooku nan lay gisee weer naan ma gis naa weer may wori te kooku dëkk ci gis weer moom est-ce que kooku man damaa woor ma wori woo ma wori wala ma woo ma woor mënul nekk. munu nek dedet est est-ce ki nga xamanteni mom moom kooram juróomi waxtu kessa lay nek juróomi waxtu lay nek koku mom man na bok ak mom wer am na ko xam juróomi waxtu lay wor ci bis bi te ñun ñaata waxtu lañuy wor for bis dedet am na ci dëkk yo xamni mais ñom ñoo ñu ëpp temps bu ñuy wor mais islam dafa nek diine ño xamanteni waxu ñu dafa teggu ci xel de mais diine ju logique la lu logique nag nekkul lu xel nangul rek mo logique. xel mën na nangu dara te du logique xel mën na bañ a nangu dara te pourtant lu logique la ndax duñ ko xam léegi mais l'islam li mu xam ne bu leen ni yonent gis na benn waa ji nekk ci àll ba rek mu ne ko wari naa naa mu ñëw wori yonent bi c'est pas aussi jamono jooju noonu bokkut ak jamono jii ñu nekk lu bari dafa dafa feeñ tey tey moo tax du ñu jël loolu bàyyi xadiisu woor leen boo leen ko gisee wori leen boo leen ko gisee boo leen ko gisut ngeen mottali ñaa parce que ñaari xalis la boobaa ñaari xew-xew la ñoo jël bi bayyi bi kon donc bi gëna wër lañu jël moy wor leen bo leen ko gis bu leen wor benen bi mooy mais fi jamono tollu mais yow Sénégal nit mëna nekké nekkee ni gis na wër ak fi ci tollu avancement te mënu indi preuve ba noppi bu la ko nit ku dëkk tuba waxe nga lank comme si gani wa tuba amuñu ay quoi comme si que mouride murid amuñu ay bët comme si gani mouride murid ben ruq lañ nek mo xam xamuñu la xew ci aduna bi gennu ci aduna bi té pourtant ñoo ngi fépp partout dans le monde wala ñom seeni bët dafa baxul wala dañu gumba ba ñu gis wër ba ku nek jaxum mën mëna gis weer ñom mënu ñu ko gis ak fi aduna tol ak preuve fi mu toll nga nekk ab dëkk yow nit gis weer yow nga nekk dëkk nga mënoo ko gis yow xanaa doon ma dëkk boobu ñaari nit dafa nekk te beneen mooy sax même mbooloo mbooloo mbooloo laa buñ ñu taxawee ne gis nañu weer balaa ngaa war xool mbooloo ba pare ñan ñoom ñee ñan ndax mbooloo mii nii mën nañoo dëppoo ci wax wax lu dëgg yëpp lislaam da koo teg mu nekk ay conditions leer te léegi ku ne xam na li xew mbooloo mën nañoo taxaw ñu dékk leen micro ñuy wax te lañuy wax dara du ci dëgg chaque ñu ngi gis ci mbooloo moom bu ñu taxawee gis nañu weer ñooñu duñ taxaw woor kenn duñ taxaw woori kenn te sax nag yow sa jëm bopp boo gisee weer mu wóor la ni gis nga weer bi maanu nga boo ko waxee nit bu la gëmul mais yow yaay woor mais moom concerné wu ko yow mën ngaa woor parce que yaa gis weer yow gis nga sa weer yow teel sa weer nga woor yoonu murit ay borom xam-xam lañ loolu leer yoonu murit ñu ngi fépp ci réew mi yoonu murit ay kàngam ñoo ko séq sëñ bi ngeen di wax moo leen gën a jàng ña ko wër ñoo leen gën a xam àdduna ñoo leen gën a jàng bul yaakaar ni nga leen gisee ñu toog sukk seeni oom woyof nga yaakaar ni jànguñu ñooñu ay thèse lañu yor mu ngi ci armoire yi ak taabal yi ñooñu ay scientifique lañ ñooñu ay astronome lañ ñooñu ay kàngaam yu mag yu bokk ci développé réew mi te xamoo leen ñooñu nga gis ñoo sut fa ma xam ne doonee benn ñooñu nag bul yaakaar ne ci ay falaa falaa la ñuy dox yoonu mu daf am histoire ak weer ma tontuwaale sax waa jooju nga xam ni moom bës lay wër te xamul dara kenn man réew moom ba ma dalee seetaan ñiy wax ñëpp ci réew mi sax moom ci liste ñi gën a nul laa koy laa koy boole waxi dof rek lay wax. doon naa ko ma télégramme ma je ne sais serigne touba ba yàlla defé muy liggéeyal sallallahu alayhi wasallam tubaab bi génnee ko fañ ko yóbbu woon kuy wor newu fa ab newu fa yi baz la yi taatu géej la yi ab alla te pourtant mom dafa dëkkee wor nga xanaa lu nit dof dof ak lu nit xamadi xamadi war naa laaj posé boppam question mais sëriñ touba nan la daan xamee bu woor jote nan la daan xamee bu dog jotee parce que fi mu nekk xamuñu koor duñu ay jullit kon ku nekkul jullit nan la mën a informer nit lu jëm ci wàllu weer parce que benn mooy maanduti rek même bu ko gisoon mais problème maanduti day causé ndax il faut nga nekk baaleex muslim kon donc Sëñ Tuubaa fan la doon sukkandikoo ba xam weer parce que tubaab mënut a joxe weer ndax xayru muslim la du jullit xayru aadil loolu mënoo cee sukkandiku loolu moom dèjà moom mooy tontu bu dee ku jàng diine nga tey wax kon jaan yow xamul li ngay wax bu dee ku jàng diine nga tey wax war ngaa xam ne kon ab ab jullit mënut a woor ci ni ab yéeféer moo ne gis naa weer bi parce que problème mu maanduti dafa am ak problème nekk jullit Sëriñ Tuubaa na la daan xamee weer bi da ngay dellu ci mbindam nga gis ni jamono ji muy nekk ci exil bi yëpp xasida yi mu daan tënk weer wu jot Sëñ Tuubaa da daan tënk ay xasida ci ay bis ci turu weer di ko tuddee rabiul awal bi ma ko tuddee cheikh ramadan bi ma ko tuddee jumaadal ula bi ma ko tuddee saani weer wu jot da ci daan tëggi xasida ak ki bayit di ko limale ci bisi bu weer bi dee mu indi benn xasida loolu moo ko daan permettre mu xam fu jamono toll yoru woon montre wala dara mais ku xool asamaan si jant bi daan dafa lañ daan xoolee heure xanaa léegi la xool montre di xew rek parce que ñi léegi ñoo ni laar rek mais bu njëkk boo nee tasawul sexe Sëñ Tuubaa jàngal na la ngay xoolee julli bu julli jotee jëru ngay xool sa montre xoolal rek asamaan wax na la technique yooyu xoolee ba xam lu ci loolu moo tax Sëñ Tuubaa da tënk ci weer yi weer bu jot mu tënk ko tuddee ko weer tuddee ko ab xasida noonu la nga daan ba at mi jot ba koor jot ba korite jot ba tabas jot ba aji màkka jot weer bu nekk boo demee ci xasida dina gis Sëñ Tuubaa tënk ko ci ay ay ay ay xasida ak i bayit yu leer moo koy permettre moo xam weer ak fu mu toll benn ngi noonu mooy indi tamit nga gis ni bépp événement bu Sëñ Tuubaa mës a jàpp wala bu Sëñ Tuubaa mës a bu muy bind moo xam rendez-vous la wala lettre bu muy bind di ko signé la gis booy xool ci suufu weer wi da ciy signé signature weeru lislaam moom xamul ay janvier ak sax na far yàlla moom xamul loolu mosoo gis fu Sëñ Tuubaa bindee janvier février mars avril mosoo koo gis ci xas daal fu suñ tubaab joxee nit rendez-vous wala yoonu murid ñu jàpp benn màggal di ko jàpp ci ay janvier février amut parce que ñoom nekkul dañuy xaar ba weeru jot rek ñu naan feeñ na feeñul feeñ na feeñul déedéet ñun ni ngeen di jàppee jan premier janvier février mars avril mai tey vingt huit laak quarante neuf laak cinquante jours laak yoonu murid noonu la ñuy jàppee ndayu koor maamu koor diggu koor raqi koor raq gàmm raqaati gàmm ba mat ba ba at mi mat sëkk ñu tàmbaliwaat tam xarit ba mu mat yoonu mu dafa histoire ak ci weer waxuma la weer tubaab ay janvier février mais ñun suñu histoire ci weer mooy ni ko lislaam xamee ñun noonu la ñuy jàppee ñun ñu ba koor jot ñu naan tey mooy weer sangam tey mooy jour sangam déedéet weer wii ñu nekk nii chambane gi ñu nekk gisoo fi kenn ku fu tudd affaire weer fi mu ne te pourtant ñun ñu ngi waajal màggal maam Thierno nisfu chambane ki nga xam ne xam na fan mooy nisfu chambane mais kooku bu ñu nee ko tey weeru koor fu mu toll chambane ñun amuñu problème weer de yoonu murit amuñu problème weer déedéet parce que ñun weer yëpp lañuy jàpp weer yëpp lañuy topp xam ñaata fan la chaque weer bu weer buy deewee di nga dégg ñu communiquer suñuy rajo ak suñuy télé ni weer dee na bi sàngam bu weer wi deewul di dégg ñun la dañuy mottali fan weer fan yi waxuma la weeru koor de weer yëpp laa wax weer yëpp laa wax fii nag amul keneen ko fi def nag ñu ñu ngi taal suñu jale ñu ngi taal bis bu ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi mais dañ koy génnee weer bu deewee di nga déglu Lamp Fall wala déglu télé murid yi wala nga déglu site page murid yi ñu la weeru feeñ na murid yi ko partout ñoom ñu ciy nekk parce que xam la moo tax waxuma la koor de waxuma la tabaski waxuma la korite de parce que ñun suñuy événement yëpp ci weer weer yooyu lañ koy jàpp xam nga Sénégal daan weeru olof mais mooy weeru olof mooy weeru l'islam ñun suñu événement yëpp ci weeru l'islam lañ koy jàpp 18 safar xanaa dégg ngeen ko safar

28 Chaabaan nga yeewu sël mu gaaw dem taxaw nag ci kaw étage bi di di séntu weer commission yoonu murit doxewul noonu déedéet commission yoonu murit bis bu set weer wu jot chaque jour ñi ngi topp di xam ak saytu fan la weer bi tool loolu mooy commission yoonu murit te it nekkul dañoo tëdd Touba déedéet ña nga tuubaa ña nga Casamance ña nga Kaolack ña nga Fatick ña nga fépp foo dem ci àdduna ab Sénégal a nekk fa rek xamal yoonu mu am na fa représentant di xalif foo dem ci Sénégal nag bitim réew fu mën a nekk am nañ représentant boo xamante ni il est chargé muy xool li xew di remonter les les infos te kooku nit ku maandu ku set ku sell lay nekk waxuma laa ne commission bi ñëwaat teg ci commission boobu noonu mais ay nit la yoo xamante ni dañoo ci xam ci loolu lu jëm ci wàllu weer def ko seen liggéey di ko saytu waxul de toog nekkul na ngay toog ba heure bu la neex rek tëdd nelaw yeewu lekk sa ginaar ba rek nga ñëw toog sa kilim taal nit ma xool weer wi boo gisul nga ni gis naa ko wala boo gisul nga ni xaar ma woote compéntum ñun la gis naa weer wi déedéet parce que loolu ab julit sa diine ñun diine dafa bu luñ ko jël di ko jox n'importe qui di ko fawee déedéet parce que koor dafa am importance ñun koor dafa am importance ñun ndax pour ñun yooyu ay weer fondamental la gàmmu même chose màggal même chose yoonu murit bul jàpp ne sëñ bi day toog rek ni du weer leen ñu woor war leen ñu woor demee wut noonu sëñ bi da am ay taaliba yu mu ko dénk spécial nga xam ne ñoom seen yitte yëpp weer wu jot dañu xool ndax dee na at laa wax de waxuma la koor rek rek nga xam ne ñi nga xam ne balaa ñoo séntu weer dañuy bàyyi bala vingt-huit Sàmbaan rek ñu yew sëlmu taxaw naa dañuy taxaw di ko séntu weer ñaari fan la ñuy séntu weer ci at mi yëpp nag mooy vingt-huit Sàmbaan ak vingt-huit Ramadan yoonu murit melut noonu de ñun at mi yëpp weer wi yëpp lañuy toog di gëstu di xool fan la weer wi toll. commission boobu nag kuñ ñu weer wi feeñ nag ndax lan ay jullit lañ ay majeur lañ mbooloo la moo xamante ni yastaxiilu tawaatu uhum alal kazib beneen bi it ay Sénégal lañ nga xam leen ñu am preuve yu leer ñooñu kuñ ñu wooral nag war ngaa wari war ngaa woor ku ñuy waril war ngaa wari kantaan nag màkka woor na dañoo war a woor loolu ku koy wax da ngay nax sa bopp islam du xewul noonu màkka moomuñu lislaam nañu wax dëgg loolu dañ ko war di leeral waa màkka ay nit dafa nekk di ay julit ñoo fa nekk comme ñun ni ñu nekk ay julit ëpp léewuñu dara ci màkka ñoo fa bokk yam kaaba ga julit yëpp a ko moom amul benn julit bu bëgg a dem màkka ba màkka ñoo ko doo fa dugg parce que doo déedéet le fait nga nekk julli rek ñëpp a ci am sañ-sañ ñoo ko moom buñ ko doon séddale tey di ko jaay damay am sama wàll yoro ngay am sa wàll ñëpp a ci bokk yam naar bi doo ci ëppale kenn doo ci ëppale waa màkk moomuñu diine beneen bi seen fuseau horaire ak suñu fuseau horaire ñun dafa bokkut mais ñun buñu gisee weer buñu leen waxee warale ñoom duñu ware pourquoi ñoom buñu gisee weer ñun ñu ni ñu niñu warale ñu ñuy ware comme si que ñoom ñoom moom diine ñoom bu doyloo ñun ñu leen doyloo loolu mooy lan te ñoom sax dañoo am seen commission comme ñëpp parfois dañuy juum ñaata at la waa Màkka juum fii génnee commune génne ab génnee nañ annonce yi ba tàyyi ni dañoo juum ca weer sàngam ca jour sàngam loolu mi ngi fii ci net bi comme mu weddi nga dem nga archive nga xool ay nit lañ de duñ ay malaakaak yi ay kii ay nit lañ juum nañ ba tàyyi ci affaire weer parce que dañuy sukkandiku ci astronome parfois dañoo juum ba tàyyi ci affaire weer nangul ko seen bopp publier ko kafaara lool ñu koy teg ba ñu koy seetaan ci télé yi mi ngi internet yi lépp donc kooku nekkul ni bu dee woor dañoo war a beneen mooy problème mu territoire la borom xam-xam yëpp mës nañoo daje di lijjanti ndax na nan la ñu mën def ba am benn weer weer unitaire loolu munul nekk bañ xawal ba xool lañ ne mënul nekk parce que territoire yi bokkuñu yow yaa ngi nekk ci guddi man maa ngi nekk ci bëccëg ko bokkalul heure booy julli timis mënoo bokk ak moom weer parce que bu fekkee daa ndogu man mënumaa ndogu ndax man ka nekk ka nekk ca ca ca Québec wala nangam moom mën na nekk di ndog wo ma ma wokk tax mën na saa ci loo nekk man maa ngi fi mën na maa ngi ndogu kon war a ndogu man parce que ñom ja wi feeñ weer wi génn na fa maanaam jant bi sono fofu weer wi génn na kon man dama wara dama wara dog kon problème day am fofu rek ngay xolé bu fekkee nit dala wor né la man dog naa yow sañoo dog donc war nga xamni ne bu né la weer wi feeñ na sañoo parce que la motax dala raw ci heure bu fekkee nak nit ki bu looy téléphone la say ah timis jonne de ni dog nañ de sañoo dog c'est parce que da ngay na wouté ay heure kooku nag mënoo sukkandiku ci moom ci weer yu feeñ na nga naan da ngay wari parce que lamoo moo tax moom weer yu heure ba muy feeñ ci moom yow heure boobu àgg góo fa yaw donc kon bu nee weer yu feeñ na rek nga nekk bëccëg nga ne ah sa waa ji nekk Canada dana ma weer feeñ na de te yow yaa ngi heures nga dog loolu mënul nekk xel nangu ko ni xam-xam du lislaam déedéet déedéet loolu du du du du du du du seede déedéet loolu du lislaam déedéet du xewul noonu yëfi du xewul noonu yoonu murit dañoo yàgg ak weer ndax lan céet ngénteeg màggal ak gàmmoog xew ak rendez-vous cant lu mu mën a nekk ñun ci weeru olof mooy weeru lislaam ci lañ koy tënk ñun xaaruñu ba vingt-huit Sàbaan jot ñuy jug naa dañuy séntu weer ñun ci séntu weer lañ dëkk moo tax boo suivre fee paasu murid yi di nga dégg ñu naan weeru feeñ ak weeru feeñu loolu nekkul ni benn yoon lay doon ci at wala ñaari yoon chaque weer la chaque jour la day am donc ñooñu am nañ yitte ci koor gi donc ñooñu am nañ yitte ci weer wi donc ñooñu weer wi soxal na leen ñor na leen ñooñu mën nañ leen a wóolu ci dénk leen biir weer dañu waxante dëgg saxaaba yi daawuñu toog ba vingt-huit cent waa ñuy séntu weer seen mbir yépp dañ ko daan tënk ci weer weer olof di ko lijjant di ko topp kon ñooñu amuñu woon problème weer ñun murid yi amuñu problème weer ay jeexle mooy ñu xam ne ñun murid yi amuñu problème weer déedéet amuñu problème gis weer déedéet amuñu problème ñàkk gis weer déedéet parce que la moo tax ñun tàmm nañ chaque jour chaque instant ñuy gëstu di xam ci weer wi ci lu mu nekk dañoo jàppee weer wi benn nit boo xamante ni ngi dund bu lekk jotee ñu seet ba xam xiif na bu xiif jotee ñu xool ba xam lekk na ñun li ma bëgg a wax mooy ñi weer wi di xam fu mu toll mat naag matut ban heure la dee woon daaw ban heure la judd woon année bii yooyu ñun dañ koy saytu ñun amuñu problème weer de ku am problème weer yaa am problème weer mais ñun moom xolli nañ suñuy nopp bu yàgg su suñuy bët loolu nag mooy dëppoog suumu li ru'yatihi woor leen boo leen ko gisee dog leen boo leen ko gisee boo leen ko gisul nag ngeen mottali Sha'ban